أيها الإخوة أيها السادة لا يسعدني جدا قبل أن أتناول هذا المسيع أن أقدم لحضراتكم جميع تهاني ونعرض لكم أو عليكم من محبة قادمة مسرعنا بكل شكر وإثناء لحضرتكم الكريمه خائبين فيتم وجزيتم خيرا ولا لقيتم ما باقيتم ضرا فهذه كل المعجزة ألقيناها لحضراتكم من حيث ملأ قلبي محبتكم وأملأ قلبي أيضا حب المعاشرة معكم على حسن المعاشرة لإحياء هذه المدة الحنفية أو هذه الطريقة الصوفية الكاملية متمسكين بشيوخ من ذات ومهتمين بصنايتهم ومتأكدين عقائدنا السنية والسنية من هذه الآية الكريمة الشريفة حيث يقول جل من قائل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقوله أيضا الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين فهذه الكفاية من هاتين الآيتين الشريفتين كلتاهما تدل على حسن عمل المؤمن وعلى بلوغ عمله ان اجتهد وكذا لا نزال كعائنة في تاريخ المصلحة وإلى حسن اعتقادنا بشيخنا شيخ فرد حيث أشار تلميذه وابنه شيخنا شيخ فرد بن عباس قائلا طريقتنا سعدية صادلية إلى ابن عطاء الله ثم إلى الجيل جنيدية كرخية علوية الى خاتم الانباء ذي الجود judi السلام عليكم bi نيوغي لين دي نيو خاصه دي بير نيو ديكو ماغال ديكو بيرال di وي màggal di ko nga xam ne ñoo cyallalo ci sayyidul wujudi sallallahu alayhi wasallam jukki ci biir suyuuxu tarix yi yépp ak borom dawaa ir yi amatan nag ñu daabaanal ko ci jullit ñi ñëpp ñëpp ba di ci ciru Kébémer gi ñu sunu borom wërsëgale muy dëkku diine ku juddu ci dëkk bi ku ñëw ci diine amul sunu borom wërsëgale nu muy dëkk boo xam ne par parloo ci diine amu fi muy son sens loolu neex naa waxe lool xew-xew diine bu fi amet li ci gën a dal xel mooy xale yaa fay ëpp ak jigéen ñi loolu su ma ko waxee du gongo gu may tëkkal dëkk bi su ëllëgee bu gonga ga sàllee na am kert xew-xew bi rëyaat na ci man ci lu bukkul ak tariixa sax mooy man ci terrain bi ma toog laa juddoo def naa ni kenn fàttewul kër baraag ci mag ñi kon su ma leen ne fii ma toog laa juddoo danañu ko gëm kër baraag gi ngi sama wet yàlla baax na ñaan leen yàlla dimbali e Momar Dieng fii ñoo ngi koy dénk di koy bënte nuyoo suñu bàyyi alaaji amet seen ngërëm ak seen nuyoo nag mooy nuyoo kilifa dëkk bi bépp nit ki nga xamante ne bu ñu si sirif yi nuyu nañu kilifa yi diine yi bu leen joxe ñoom seen wàll comme ñoo ngi jox seen wàll aayul puisque ko ku la lebal ci li mu am ci li nga am nga koy mën paye pàtt wu nu cof ñun yàlla na leen yàlla dimbali mbokk yi ñoo ngi xuus ci géej moo tuddee boppam géej seex naa seex bu xarit Jilaani euh, néew na lool aji wax ji ci xuus ngir yu bari bu njëkk bi mooy ñàkk yéene nit ñi ngaañ loolu mooy lan njurum ji di ñaari def nu ko yëkkati ku sa gëm wax waxee nga wax ca sa ko dul su ko ndaga dajee ku sa ko dul noonu loolu sax rek mooy di ci mag ñi gisoon tax ñu teg ko ndànk ci bruq di ci te tuuti dina mu toll ni bànneexoo ñu nit dina ci jëm a cof ab cof maanaam alxalil minal kasiir puso bu nu sëpp ci géej gi rek yëkkati ñu nu toll noonu lan ci am waaye ñu fas yéene laay biire ku suñu borom sellal sa xol laabal sam xel nga mën a taataan kan mooy Cheikh Abdou Khadir Jilaani Cheikh naa Cheikh Abdou Khadir Jilaani nag mooy kan yaayu umul xëyri la tudd kooku tudd naa Xuseynu maamam papam tudd Moussa yu kooku koy sidina al afan afan moy mamam ci wàllu bayam, usini di mamam ci walu yayam kon amna ñaari di walé ci saraf comme afan usini ñu jur sirif ñoo ñu ñaar jur ko ki ci ndey ki ci bay mu ngi juddu baxdaat année 1194 do judd ci juddu ci yàlla Isaa te fekk juróomi téeméeri at ak juróom-ñaar fukki at ak benn ci gàddaayu rasulullahi sayyidina Muhammad sunu boroom may na ko mu dund juróom-ñeent fukki at sunu boroom may na ko mu dee fukki dee ak benn ci àddina dee ko sunu boroom may na ko ci doole mu amul ñu juróom-ñetti fukki tariixa lépp di dox عليكم السلام مرحبا خم نغي نجوم نين فكي اب كوكو دوندو دي تي بير جوم نين فكي اب فكي بي اك بن دي تي كونتول نين فكي تاريخي باطن اك نين فكي تاريخي ظاهر كوكو مود شيخنا شيخ عبد الخالق جيلاني غير دني انه من اجل الاوراد قدرا وانفرها ذخرا وأعلاها ذكرا وإن من فوائد إذه أن صاحبه لا يموت إلا على حسن الخاتمة وإنه من أسباب الغنى إنه هو من أسباب الغنى وكفى بذلك مزير خلاص رك ورد وخم يغني عن جميع الأوراد ولا يغني عنه ورد لولو تاي طيب، بوب كو خمول افير نيت يالا مونو كو گم فلا دو خاتخ سبب مالغري دو گم دي مي دو خاتخ سبب شيخ بخاري جيلاني سي ورد ورد مي wirdu nga wirdu tarixa yi yépp doy na walis leen te beneen wirdu mënul kuwaase maanaam mënul làmbaale wala mënoo ko wirdu mu doy walis wirdu yi puisque dafa nekkoon seexu kulli tarixati dangaa gis ku déggul di laa jiidi ndax beneen tànkam la tegul góor yàlla yi wala ñaar mais moom la mu bindal boppam de dafa ni wa aqdaami ala unuxiri jaali te amaam mu ko wax te naa ko mu ko ko certifié maanaam sallallahu alayhi wa sallam moo ko di ko jël naa samay tànk teg ko ci sa mbagg mu jël say tànk nag yoo jëli teg ko ci mbagg yi góor yàlla yi ba bis penc kon ku weddi wax boobu weddi wu Cheikh Abdou Khadir Jilaani wala tarixa bi rasulullah nga weddi ku weddi ne bi nekk la nga doon xam nes na ko Cheikh Abdou Khadir Jilaani kër mu juddoo ñaari tànk yonent baa ngi marqué ci mbagg mi pourtant événement boobu day xam nga ñaata at la juróomi téeméeri at am na ko ak juróom ñeent fukki at ak benn jii li dóoru judd fi ne bi tegee tànkam ci mbaggu Cheikh Abdou Khadir Jilani fi ji li am na juróomi téeméeri at fukki benn mu door a gane àddina Cheikh Abdou Khadir Jilani fukki lu taalibe la ci tariixa bi loolu li ci gën a doy waar mu di ko sol bu mu tariixa bi ba naan tariixal xaadiriya xam nga ni kuy sëriñam Cheikh Abdul Wafa yi ko may tarixa bi kooku Ahmad imam sa Mbàkke ko jox wird bi mu jëli ko ci imam Siddi mu jëli ko ci Junaydul Baxdaad imaamul Junaydi képp ko dox mbirum soufisme ci moom ngay repérer raw même tubaab bi bind leen ko te am na 40 ans ci Baxdaad nekk ilimaan bisu jumaa bu demee bay kàbbar sëgg ni jëli ndodd naa ngi teg sa tànk wàcc te loolu def na ko 40 ans ji li dooru judd ñu koy préparer terrain bu kàbbari di julli nit ñi denn lu ne lay wax mu ni jëli ndodd maa ngi teg sa tànk wàcc ñu ko looy wax mu ni kii bëgg a dikk ku nu nguule sëgg mu teg la tànk ñu dégraté la nga nekk sero moo tax man ma nangu balaa ñëw di bàkku jiw bi mu yeggaayu kenn ko dikki loxo déggoo Cheikh Mbay Mbend mu ni tariixatul xaqi mun de bil anaami ata bil aminu ilaa ma laa yubaaraahu tariixa bi sunu boroom a ko denc ci xaddatul xëy bi yëbal jibril mu dem tànn tarixal xaadiriya ci xaddatul xëy bi jox ko rasulullahi mi ngi jëkk a recevoir tarixal xaadiriya ci kaw suuf jël tarixa bi may ko sidina alin premier taalibe bi xaadir léegi nag sidina alin mooy kan def naa jël ñu ciy delloo ñebe dina may jëndal xam-xam yi mooy bunt bi bàyyi nag bàyyi na bi bokk benn ndey ak benn bàyyi rasulay jiliti doomi boppam nay ko mu jur sëriñ fi ñoo ngi am foofu sidina bi waaye ñu gëm bi mooy premier taalibe xaadir ci kaw soow sidina Aliyu ba mu jotee tariixa bi daf ko may doomam Asan Asan jël tariixa bi may ko Asanal Basri yu Asanal yi moo jël tariixa bi jox ko Maaruful Karaxi Maaruful Karaxi ku doon yëlif ci juddu la ci ne bi noonu ko gis texe buñ ko wër di ko jox tarixa bi ñoo ko fekk càll bi ñu koy sàmmloo nit ku wiri di woon la ndeysaan woos lool niw doole tànkiyaa ngi xar ci ku ngi sowe ku ko ku ko addiyaa di texe jusqu'à maintenant boo bindee lettre bi ni ci trou mooro fu kari xiit saare arfi lettre ba du wéer ñépp ko xam mooro fu kari xiitee tarixa bi jël tarixa bi wax ko imam Shibli imam Shibli jël tarixa bi jox ko imam saqat yi saqat yi jël tarixa bi jox ko Shibli Shibli jël tarixa bi jox ko sa Sambakki Sambakki jox tarixa bi Abul Wafa yi Abul Wafa Cheikh Abdul Xaadir Jilaani bi waral kenn ñu jël tarixa bi jox ko ba mu feeñee dafa dem seeti yàlla keroog Cheikh Abdul Xaadir Jilaani juddoo laa ni dafa dem seeti yàlla ndikkin yàlla maye kan suñ borom ne ko toogal muy buntee la door laa wax yaay kan suñ borom ni Cheikh Abdou Khadir Jilaani bind naa ay nit yoo xam ne seen mbir duma ko xamal nit duma ko xamal jinne dundu ma leen pour àjjana dundu ma leen pour safara bindu ma leen pour yoo leen bindu ma leen pour mbugal leen waaye bind naa leen pour ku leen gis texe wala ku leen gisul ku leen gëm texe doonte xamoo leen ku leen gëm rek texe doonte xamoo leen ci Abdul Xaadir Jilaani ni yàlla ñooñu ñan la mun ko du wax ñépp du mais ci ñooñu nga bokk yaa ngi bokk ci ñi nga xam ni ku leen gëm rek texe doonte gëm doonte xamu leen mun ko dooma xamal seen ni man rege ci àddina mun ko ñooñu lekk ak naan duutu leen dundal boo leen gisee dañuy woos dañuy yooy boo leen gisee amatuñu xalaat yi génn ko àddina bàyyi nañ àddina jàpp yàlla ñoom ñoo ngi lekk naan mais duñu dunde ñam duñu dunde ndox xam nga leen la ñuy dunde fayda fayda la ñuy lekk du naan gëm yàlla bi Abdou Khadre Jilani ma ne la dafa juddu indaale tànki Rasulillahi mu marqué ci mbagg mi jant fenk ndeyam woor mu woor baayam woor mu woor magi baxdaad woor fukki guddi ak juróom ak juróom ci weer wi wóor fukki bis ak juróom yi ci dem ak sañ-sañ baxdaad nekk juddu ñu xam dignitéem bu mag ñu musaan di werante waxtu dog jot na wala dog jotul dañu naan seeti leen umul xayri bu liir bi laajee ween rek bu liiram bi laajee ween ngeen xam ne dog jot na liir jublu ci réew xam-xam te boobu Ahmad Dabas ma nga fa bokk ci laxtaab yi Cheikh Xaadir Jilaani yi di jox mag ñi waxtu doog nekk dëgër nekk perantal mag ñi xam ne moom mooy xutbu laxtaab magi baax daat ku mu dajee ci bi ji ni ku ëllëg dama bëgg nga dogg seeg man parce que ku bokk yéen ñam texe bu jii li jox rendez-vous juróom-ñaar fukki borom kër ku ne mu lekk lekk sa kër laay dog see dog jot fu sa jabar yekk ndogu teg jii di di yor loxoom ci palaat bi ngeen bokk ko nag ñu dog ba pare dem di naaj fële di jumaa ja ku ne yàkkamte gis sa morom di tiital ni ko mën la xaw sa semaan dogandool njëw boo ko ni ko banaa la mën la dogal wallaahi coow li ni kurru ci Bagdaad ku ne man naan dër wi suu yii diini mën la dogal njiili ni leen man la maa doog fépp maa ngi ñeneen sax ñu dul yéen xamu leen ko xanaa xam leen juróom ñett fukki tari xale yàlla wékk sama ko mu contrôlé juróom ñett fukki ñoom ñëpp kenn ku ne maa di jumaa ju ci àddina am naa fa minbar te dinaa fa taxaw jàng fa sama xutba doon ci jumaa yi ci àddina yëpp kaa barandoo ci benn heure yëpp Cheikh bi Xaadir Jilaani génn ci biir Baxdaad di doxantoo daje benn chrétien ñu ko yaay kan ñu ko may sutu yonent bi ba ñu tudd turam kooku ne ko mel ni yow laa soxla woon Muhammad mooy sa maam mun ko mun ko Isa mooy yonent piir njii di ni ko ci nan mun ko Isa dafa daan dikk ci bàmmeel bu kenn xamul kañ la borom dee mun ko jugal ci ndigalal yàlla ñëw bu jóg di waaxu ñëpp gis ko te Muhammad ko def mun ko yow duma la wax sax lu mu muhammad xam wala lu mu man man nga dul muhammad juróom ñaari siècle dox sama diggante ak moom kaay moo ne lu raw la la isa wanoon xanaa xamoon wax fakkiitu ram san kaana isa yu hillu bi yi kaana yu hilmoo te waram sariyaani xanaa xam ne ni maa jeexal xam-xam yonte la Moussa mu ne kon sama promotionnaire ci booba ganeeguma àddina mais loolu xalu sabab nandem wala lu Moussa mënul woon wala lu loxam bu ko Isa mënoon defu ko woon nga gis su boobaa yi mbiru Mouhamed ëpp na loolu maa lay maa lay sëñ bii ma maa lay jommal ñu dugg si gi Baxdaad moom jéeli jéeli ñu kóoral rek ba gis bàmmeel bu fënax bu la yéem moo xam borom mu rek bañ ko fii daal óor na ma di bàmmeel la fi ne xaw ma nag borom yéy li woo bàmmeel ba ne ko yaa ubay dalaahi kooku ne ko labbeek yaa xaw sall asam ci biir bàmmeel ba waa ji dégg mun ko gëmoo ko parce que ba la neexee nga ne gisal ko da ndax ji leen kooku waxuma yàlla waxuma bi yonent génneel sama maqaama génneel fi gis ak waa di waa ji xottu suuf si taxaw yëlbu ak perkaalam ñu ko mën a diw doomi diw bokk ci giir sàngam waa ji daanu ci kanamu jiy bi cheikh abdou xaadi jilaani kaylaani jóge fa ak manditeem di ko toog ci buntu jàkka ji ji li nee na anaa nasul unumi wa darsul suxli ana siyuuxul wara li kulli imaami donte ay mal interprétation am na ci ngir ñàkk xam itam waaye bu ci mal interprétation amee it yéen ngeen dënn bu yaatu gëm ne tariixa ngi boo xam ne ay misaal laa leen ciy jox bàyyi li ci def jëlee leen naa sérif yi tudduma leen waaye fii ci Sénégal tariixa boo xam ne moom moom war ant seli nga ci biir ñëpp xam doomam ja moom Ousmane si ne ca tariixa ba ñëpp xam doomam ja ca Tiwaawoon moom Amadou Fall ca ñebe ngir Cheikh Ibrahima nekk ci biir defe naa ne ñii ñett fu ñu tudd Cheikh Seydil Aji Malick tudd maam Mor Anta Seydi tudd maam Cheikh bi Fall ñun ñii ñii ñett fu ne sa bàyyi tariixa xaadir la yoroon di ko liggéey ba yàlla fal bu naa ko souvenir bu toll noonu defe naa jarul sax muy tudd yaaram ak ñu yeex ña ca des ku am xel fii ci Sénégal war a xam ne loolu dara la. Cheikh bi Xaadir Jilaani téeméeri góor yi yàlla xëy si ko. ni ko dana lay laaj doo ñu tontu ñu dëkk ak yow boo xamul li lay laaj ñu dem kenn ku ne nga guuxi ma sow ba sa jëmmiñ fees ñu dëkk sukk ci buntu madrasa bi chef xarit ji laa ne xaacu xaacu xuri sin seen biir xam-xam it seen dund yëpp nga ci jiy li lokk kenn ku ne ne diw nga tudd diwaru jur nangam lay laaj te nangam la tontu ba téeméeri góor yi yàlla yëpp jeex mbirum furum mu xajatul suuf mënuñu wax képp di dox ci asamaan si tiim leen fekk mi nga am genn gan bu jóge asfahani kon ci akabir bi ni tuuti jéeliwaataat ni leen na ngeen ma baal àq dafa am mbooloo mu ma doon giseel waa ji ne comment kii bugul sunu kanam mi ngi toog di wax ñun làquwul la buul naan dafa am mbooloo moom dama doon réunion di seet ci xel ni loolu mën am ak nu loolu mën a amee ya, ci def ci poosam nekk sero dal di gestoog xaalam waaw nah, ko dem di jàpp pour julli tàkkusaan am picc tiim ko saw manto bi comme xaal baa ngi ci góor gi góor gi sippi xool ko picc mi daanu ci kawam dee mu xaj manto bi jaay manto bi jël njëgu manto ba sax xen yàlla maa ngi la ko sant ci picc yi sax xam sama maqama ba ma xool asman picc ñi miitu la naaw ba mu jaral leen xaru nekk seen bëkkan bu ma di nga xamu di picc xam nañ sama doole del di génn wuti tefes ga diitu lu mu lekk amuloon ay dàll ay këram waaye kër daaw nu togg lu doy mu dem ci tefesu dex gi di portaatu xobi su pëme xobi salaat yi mu yëy digg yaa ngi ci ak naaj wi amuli dàll xaalum di dikkul ko fa Cheikh ji li daal di doyee ñu di ko woo doon Cheikh Abdou Khadre doon saax ñu ko sabaay Cheikh Abdou Khadre Jilaani dee na ñu di ko jëm jii di indi ci kër gi woo sangkat bu mu sàng sang ko sàng jullee yëkkati jaat gi bëgg koo sóoli attanun jaat gi ndax daal gépp di ci jaatu ji li attanuñu jaadu gi ñu woo cheikhul mubajjil moo fa nekkoon xutbu samaan ku ci ram xaadi jilaani dee na kenn attanuñu jaadu gi <coughs> nguur gi dugg xalwa suñu borom ñu dul ko kiiraay fekk ji li ci wetam kat leen tuddee cheikhul xaadi jilaani ji li sa rahmaan lañ ko takkal boobu garaab waa ji seet ndax ji lii dee naag diwul fekk ji ngay waxtaan ak yàlla nu nga toog ci tenk suñu borom mu daal di yëlbu ñu Cheikh Abdou Rassakh mënagu maa dem ëllëg maa nga jëm safara maa doon ganuk Malik ñu bëkk ne bu safara dama guma puisque dëgëragu leen ma la nit ñi yaakaar maa ngi leen di bàyyi ngeen julli juma imaam lu mu bàjjil ne leen jiite nguur gi jiite juma ngeen di doxantu yor yatam dajeeg benn jaan mu dóor jaan ji jaan ji dee ay jinne daal di koy fëkk xam ngeen ni jaan dana nekk jinne jaan dana nekk malaaka xëy na ci kanam bu xajee ci waxtaan wi dinaa leeral loolu jinne ji fëkk góor gi te mooy bu raatibu daal sànni ko ci dund boo xam ne ay jinne ki soo ko wër ñu ni ko yaa rey sunu doom kum jullit nga nan lay mu ne ana seen doom ñu ngi ko xoole waa ji bopp bi toj na mi ngi naan ci yéen yi nga war a ngi takk der muy wax naan ci barke Seex ginnaaw ci barke Seex Xaadir Jilaani ni réyu ma nit jaan laa rey jinne ni ko eh yow bu fi tudd kooku kii fi tudd kat comme seen xel a nga ci moom jugal ñibbi génneel suñu dëkk da nga koo xam muy taalibeem laa ñu ko waxal noonu tu doo bëgg ñu may la ko lu bëgg ci wut sa xaalis ñu jox la ko fab la delloo la récompensé la ko min illiti fii te nga baal nu comme xam nga kooku ku ko dugg ci affaire ko mu xam nguur gi da yëgul turu kefeem la waa ji tudd sawe Cheikh Xadi Jilaani nga ci liggéey bi di liggéeyal yàlla suñu borom moo kom ñaan nekk ëgsi ci yàlla rek ni suñu borom ndax da nga lekk ndax da nga naan ni mu won na yàlla lool yonent yi yonent yàlla Moussa ci gën a ne yàlla am na fit lool ci jàngat yàlla ak wax ak moom waaye jii di noonu la ñemee ci jàngat suñu borom di wax ak yàlla suñu borom amul biir mu ne yàlla ndax da nga lekk ndax da nga naan suñu borom ni ko dinaa lekk ba rek ba naan ba mànde mu ko nuy dundee fu faqir taxawee ni ngir yàlla ku koleel bu lekkee ba mu regg man regg naa fu faqir mare ku ko jox mu naan du mandi du mandi man yàlla mandi naa bali cheikh abdou khadir jilani na nga wax sa taalibe yi wax sa xarit yi ni leen ñaara leen di sa góorgóorlu sant yàlla léegi may naa leen ndigal dama safara boo dikkee da nga xam li ma lay wax cheikh abdou khadir jilani aw yoonu safara dikk taxawu malaayika mi xaasin daal di ko ubbil safara njëli vérifié partout dikk ni xaasin ana say taalibe mun ko xaw ma leen ñu kuur naa kaso yi gisuma leen mun ko jox ma restri bi mu ubbi fuye te gis ci tuy taalibe mun ko ne samay taalibe mun ko amul fii place suñu borom bind na leen ngir leneen pour ñu nekk kiimaani jàmm ni mais bindu leen pour safara safara amul ci ñoom cër oh. Cheikh Jéeri daal di jëli si bax daal muy taalibe yi gis naa suñu borom tey jii maay jiite ji diwaanu lawliyaa yi rasulilaay sama maam bu absenté si si ba mu daan toog maa ciy toog ñu di jëli loolu moom da koy bind di war a dem mu jël xalimaam bind ni wa kullu waliyin loo xadimun wa inni wax na leneen wax na leneen nee na wa bahri muhiitun بالبهار بأسرها وإلمه قد حوى ما كان قبلي وما بعدي nee na bu Rasulullah tegee tànk maay teg tànk def ni wali wu ci ne ci mission bi yonent nga dikk wali wu ne moo tax wa di wali wu c'est dangereux puisque suñu borom sax ne wali wu boo ma noonul takk nga xare jëm ci man yàlla maa ngi lay nekk man ngay xeexal waaye ci Abdul Xaadir Jilaani dañu wali wu ne yaa ngi dikk ci mission bi yonent ni ma nag ci mission rasulillahi laa dikk mun moo tax mu tudd muhidin dafa dugg biir baxdaat bis jisikum xayran jisikum xayran dafa dugg biir baxdaat di dox ba fekk génn góor gu làpp gu yooyu tëdd nekk ci xer-xer la Cheikh Xadi Jilaani di yóbbu moom ni ko woo kan mu ni ko mën a diine mu ni ko loolal mu ni ko damaa dee jëli ni ko ca ma ne fi jëri jox la ko góor gi yëngal ko mu mel ni xambaane ànd ak i pàq di daw këy luñ ko tuddee muy diini ñu ko yaa dundal diine ji gis nga martaba boobule mu nu xuus nay géej gi gisuma benn tànk bu féete kaw sama tànk ba mu tàllalee silsilatizeur ay càllale génn ci Cheikh Alioune bu nu wéyte la jëkk seexal ci tarixa bi ko ko wee seexal amoon na jib soxru war di ci tariixaat soxru war di bi génne ci tariixal xaadiriya te eh, eh, eh, abu yusuf bustaan yi génne beneen càllal la ba nga xam ne bi moo jàpp ci jëlaalu diin moo jàpp ci ci kër Cheikh maanaam Cheikh Sidil Muxtaar Kunti jàpp kër Cheikh Sidi Cheikh Sidil Muxtaar Kunti nan la daan def gis bi jàpp ci Cheikh Mouhamed Ibn Atta Ilaay moo jàpp Cheikh Mouhamed Fadil Bun Mamin Sidi Muxtaar Kunti yu bu musaana taxaw bëgg a jaamu yàlla dafay nekk junniy jëmm junniy jëmm jëmm bu ne tiim kaamil di ko wàcc kooku mooy Cheikh Sidi Muxtaar Kunti yu keroog ba Cheikh Sidi di ko tarbiye ji ba mu dikkee góor bi daf ne ko tardé nga waaye am na sens tardé woo tardé nga parce que sama mission jeex na damay toxu li la may sens fekk nga fii sama leer bii leer bii moo lay defal tarbiye ngel na mu tolli ceeb ñu boole ko comme liir pour liir ba defal ko tarbiya liir ba kan la Cheikh Albikay Kunta Cheikh Sidi di sikki sàkk day ñibbi wala day toog muy gis ne àllo ji wàcce ci asamaan ab loxo ànd ci xalima daa taq ci ñuy bindal liir bi lu nekkul ci téere yi mu xam ne kii du liir na toog Cheikh Sidi dóor a loolu sori na waaye gis ngeen sunu baay Cheikh Yankoub bër ki dem la fi jóge Cheikh naa Cheikh Fall bun maa min ak Cheikh naa Cheikh Abdou Khadir Jilaani wala ni ñu génne àddina ñoom Cheikh Abdou Khadir Jilaani génne àddina Kaylaani kër yaayam Jilaani kër baayam ñu tudd di xëccoo néew bi waaye Jilaani ni ñoo moom sunu néew Kaylaani ñoo moom sunu néew asamaan si daldi rég rég yi ak i niir nit ñëpp daw dugg seen i néeg mu xittib taw ba taw ba si wéetee ku dikk murid kees fekk ci am jëy li jilaani suuli kaylaani suuli Cheikh Abdou Khadir Jilaani nekk ñaari néew ci biir Baxdaad mooy laaj Cheikh Abdou Khadir Jilaani moom Cheikh naa seen Fallou bin Mamil moom deful noonu nan la ci biir Baxdaad maam Cheikh naa Cheikh Fallou bin Maamil moom deful noonu nan la def bi mu génnee àddina rasulillahi maama moo wàcc si ànd ak yonent yi yëpp ñu jullee Cheikh naa Cheikh Fallou bin Maamil ci Daaru Salaam ñu tuuti sultaanu lawliyaa yi dikk Cheikh Abdou Khadir Jilaani ànd ak wali yi yëpp ñu jullee Cheikh man Fallou bin Maamil ñoom Cheikh Fall du noonu ni ñokkete ci baat gi mu tëddoon ni leen jullee ngeen ma ba noppi ñun kaw mu ni bàyyi leen mu jullee sama bopp nekkaat ñaari jëmb bii nekk néew bii nekk iliman bi jullee néew bi Cheikh Fall du noonu nekk ñaari jëmb bii dee tëdd dib néew bii di dund nekk iliman di jiite ak julli bi di tëxal limaam bi mu laata dem bàyyeeg ñu sunu boroom naa mel ni kuy séetu ba nelaw sama biir bàmmeel li ma mënoon fii day ñaan ci dara ñu doon def saa bi nga xam ne moom lay wax tamit sa si yoon ak kenn ku ne wala moo mën a jóg tamit